YouTube ou bien ngeen télécharger seen application des médias sur Play Store ou App Store aywa ñu ngi nuyu bu baax a baax waa Ngeexox. surtout waa Ngeexox FM mm-hmm. dañuy synchroniser Birahim. Mm-hmm. actuellement tund woowee yëpp ñu ngi euh, teewlu matinal bi donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax alors su baaxee rek ñu dem ci tribune euh, yéenekaay li ci gën a fës ci xëtam bu njëkk gestion chaotique de l'eau par Sen'Eau la dikkee ndox mi daal Sénégal ba léegi. Njaw ma nga ca de soo xam ne sénégalais yëpp ak tund wu ñu nekk ñu ngi dund guddi gu gët seetagul <laughs> Mamadou Fofana Serigne Mbaye Thiam nag lañ ci duut baaraam tuuma ndax wax nañu ne diggante eh, ndox mi ñu jébbal waa Suez daanaka Sénégal Euh, wala sénégalais yi jafe-jafe képp lañ ciy dund alors listé nañu justement seen i jafe-jafe muy scandale d'abord wi ñu wax ci par rapport ak euh, gestion bi waaye tam quartier yu bëri bëri ci ndakaaru jamono ji amuñu ndox wala bu ñu bëggee am ndox faw nga veillé quatre heures cinq heures du matin euh, pour mën a root facture yi également n'en parlons pas dafa dafa salé munoo am ndox amoo qualité ndox ba pare sa facture yi <laughs> yokk moom foofa na loolu moom xam naa ne doy na waar alors ngi noonu kon sénégalais bu ñu ngi gën a interpellé jëwriñ ji ji ci mu gën a xool ana yan anam lay joyante jafe-jafe yi nga xamante ne ni euh, moo di rek euh, moom la ñuy dund par rapport ak ndox mi tribune également ñëw na euh, ci gestion du pouvoir Pape Diop mi nga xam ne candidat la ci maire bu Dakar wala mairie bu Dakar mi ngi sàkku ci njiitu réew mu président de la République mu daal di amal ay concertation ñu waxtaanee réew mi après dialogue bi nag xam ma nag concertation ak moom Birahim ndax am na différence. est-ce que du concertation entre libéraux. entre ah. mm. waaw ñoom ñoom ñoom i neen la. kon nanu waxtaanee réew mi en tout cas na ci na ci réew mi am gis boppam am ci intérêt alors euh, ñu ñëw ci Vox Populi euh, xëtam bu njëkk moom itam euh, dikk na ci Ramaphosa bi njiiti réew mi Afrique bi Sud mi nga xam ne dañ koo testé positif ci Covid 19 waaye li ñu ci jaaxal mooy benn ayubés képp ba mu bu mu jugee Ndakaaru ci la ko mbir mi daal ah loolu nag moom amul foofa na loolu dalul xel de <laughs> est-ce que président duñ ko testé <laughs> mi ngi li ñuy tiit mooy stratégie de fraude alors Birane stratégie de fraude est-ce que mën na am wala fraude bi est-ce que mën na am ci élection locale yi jëm parce que Yewwi Askan Wi ñoom gis nañu ne am nañu chance bu rëy rëy rëy ngir dem gagné ay gox goxaat yu bari bari ci élection locale yu ñu jëm waaye nag euh, ñoom lu ñuy tiit mooy euh, xeetu fraude ak càccum élection doon ñu fàttali ko nag ñu ngi ci période pré campagne bi. mais euh, dafa am loo xamee ni. Eh. peut-être on en a pas parlé. et eh. malheureusement je yi binduñu ci. Eh. mais euh, dans une des localités ci euh, banlieue bi démb on a vu une distribution de cartes de lecteurs dans une maison c'est-à-dire am ci euh, Kër Massar pour être euh, mm. pour euh, joxe xibaar bi mm. mais ci biir kër nan lañ fay joxe <laughs> carte de lecteur c'est-à-dire que moi je me pose une question boobu ana autorité administrative yi muy préfet muy sous-préfet quel que soit ki nekk ci kër googu mais kër bu am waañ euh, <laughs> am douche am euh, euh, salon am télévision ak yu mel noonu mm. foofu du pour ñu joxe fa carte d'électeur ah. c'est-à-dire que loolu déjà je pense que tous les acteurs politiques mm. muy opposition comme pouvoir mais surtout ñi nga xam ne ay observateurs lañu ñoo xam ne ay indépendants lañu mm. loolu war nañ ci teg seen baaraam xool ko parce que loolu tamit ce n'est pas raisonnable ce n'est pas normal dans une démocratie ñuy distribuer ay carte d'électeur ci ay kër loolu moo mën a indi ay fraude aussi loolu moo wax na ku ñuy jiiñ dëbb bu ñu la fekk mu ngay soccee weewu liir donc loolu la olof Ndiaye wax nañ nañ ci andi ak joyante itam ñu ñëw ci xët bu njëkk ci Sud Quotidien ak dépôt liste yi bras de fer bi ñu nemmee ko ci préfet yi ak cour d'appel recours yeeg yi ni mel diagnostic yu gradé gradé ñoom nag seen xel dafa màcc jëm ci wàllu élection càmbar nañu euh, jafe-jafe yu ñu euh, nemme ko ci processus bi en tout cas ngir dépôt yeeg liste yeeg yu mel noonu jafe-jafe coalition yu ñu am euh, jëm ci seen ko yi nga xamante ni ni déposé nañu ko te mu am ay rëq-rëq cassation yeeg yooyu yëpp moom Mamadou wala sax waa ji jiite gradé daal na ci andi euh, lu euh, yaatu yaatu ci ay njàngat euh, ñu ñëw ci source a xëtam bu njëkk mobilisation des fonds de campagne de la coalition Yewwi Askan Wi kii wax na ko de Siré pré pré campagne lañ nekk de mhm. waaw ñu maytu propagande waaye Yewwi moom ñu ngi waajal bu baax a baax <laughs> seen i seen i fonds campagne ñoom ket la ñuy def man man bu njëkk ba ket kii Siré bu ñuy bale koñ bi wala bu ñuy bu ñuy waajee mat amal ay match nawetaan ci ci laay ci laay nemmee ko ay ket waaye coalition buy dem ket moom. xam nga léegi euh, nu ñuy tuddee xam nga lan participatif cross funding. comme disent les anglais <laughs> dafa dafa commencé xew quoi. Euh, lever des fonds quoi. Euh. et puis bon pour man dans l'idée ça peut être aussi quelque chose d'intéressant parce que ñun lu ñu xamoon mooy. Hmm. le leader de parti. mooy génne poosam et que loolu mooy génne poosam. bis bu gagné aussi. Euh, mooy mooy séddee mooy décider lu ko neex. mais je pense que ñii bu ñu nit ñi contribuer ils sont aussi actionnaires cest à bu ñu gisul lu leen naqari. Mhm. lu leen neex euh, am nañu sañ-sañu toog wax ak seen leader. lu wér loolu leer ñi ñëw ci réew mi xëtam bu njëkk wax na nag ëllëgug enseignement supérieur njàng mu kawe Mary Teuw Niane nga xam ne nekkoon na ci département boobee euh, nee a baax mu également lu doy waar alors affectation Guy Marius Sagna ci week-end bi nag euh, foofu euh, bëri na coow de waaw moom foofu nag euh, Guy Marius miy dem Kédougou moom lu ci waral coow agent ministère de la santé ma nga dem ca Kédougou. oui bon oui c'est vrai que agent politique da cee agent ministère de la santé la bon si le fonctionnaire aussi fu ñu ko affecté dafa war a dem maintenant fu ñu ko yóbbu aussi ba xam war nañ ko war na fa demam déet beneen bi mooy est-ce que war nga nekk di liggéey ci benn structure ba pare am yenn posture parce que hmm. tamit souvent day impacté wu ci posture bi nga xam ne moom ngay am maintenant Euh, li ñuy wax na assumer man bu doon maay moom damay assume li ma nekk li dama koy nekk du tee bu ñu ma yóbbee ba fongale mi posture ba ma am pour taxaw askan bi dama koy continuer. non non mais mais Guy moom day euh, assumer. man dama man dama ne doon maay dama koy assumer dama nekk di liggéey fenn. mais ah. boole ci am benn posture. la ma ca fekk lu ne dama koy nangu jël ko. assumer ko mais continuer nekk ca la ma nekk. mais moi j'ai euh, peut-être d'accord je suis d'accord sur ce plan-là mais mm. man mon problème c'est plus l'opportunité de la manœuvre. Ah. C'est-à-dire pourquoi hmm. euh, lui, pourquoi à ce moment. Hmm. surtout que euh, quelques jours avant on a vu Télico. Hmm. moom itamit ñu affecté ko fu sori les gens vont se poser des questions est-ce qu'il n'y a pas un soubassement politique derrière euh, derrière ces affectations là euh, le ministre de la justice bi mu justifié ci mbirum Télico dafa ne j'ai besoin de quelqu'un qui a de l'expérience euh, tamit foofu Euh, ci wàllu Guy Marius Sagna on te dira que bon on a également besoin de quelqu'un ailleurs c'est vrai que sur le plan territorial le Sénégal c'est le Sénégal fu ñu la mën a affecté da nga fa war a dem mais moi je j'ai encore des doutes sur l'opportunité de la manœuvre pourquoi le faire à un moment boo xamee ni euh, ce sont des gens yoo xam ne pratiquement qui sont très critiques mmh. euh, envers euh, un pouvoir ou une parcelle de pouvoir muy ci wàllug justice muy ci wàllug euh, Guy Marius Sagna keneen ak keneen ku ñu affecté dañ da nga war a dem. Mm-hmm. d'accord mais est-ce que moment bi ñu la affecté tamit. Euh, amul am na beneen amul soubassement. <laughs> mais am na ji bari saa kenn ku kenn ku googu ñu ko yóbbu. Euh, <laughs> ñu ngi ba pare sax gis nga su ma doon gii Marius Sagna. damay eh. sant yàlla xam nga lu ah, tax. Ah. su ngeen ko fàttalikoo décembre 1962. ci nañ transféré woon Mamadou Dia. Mamadou Dia Kédougou. wallaay décembre 2021. moom ñu affecté ko Kédougou te moom le combat qu'il mène mm. c'est un peu aussi le combat qu'avait mené Mamadou Dia à l'époque donc il y a une valeur très symbolique deuxièmement euh, c'est mon premier poste man dans l'administration dans une autre vie ah. c'était en Casamance ah mais mën naa la wax ni ah <laughs> bu ñuy tudd euh, euh, qualité nit doomu aadama nit ah Euh, yaakaar naa ni loo gën a sori Dakar il <laughs> euh, y a des hommes de valeur dans les régions dans les départements et sur le plan humain et sur le plan professionnel il peut ne pas le regretter. Très bien. Euh, tout à fait Siré ñi ñëw ci euh, l'info yéenekaay ci xëtam bu njëkk moom Yacine dafa dikk ci euh, tëj session budgétaire bi marathon budgétaire fan yii yëpp ñoo ma wut ak gars yi ña nga woon ci assemblée national donc foofu voté nañu budget ministère yu bari bari alors Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo li mu ci xamle mooy budget 2022 bi gis nañu ne 33 ministères yëpp booy xool yokkal nañu leen ci téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay programmes yi nga xam ne répartir nañu ko ci fukk ci ay dotation waaye itam ndaw ñi xàllal nañu leen place bu yaatu foofu ngir itam ñu mën ci gis seen bopp ci budget boobu Abdoulaye Daouda Daouda Diallo dikkaat na également ci budget bi nga xam ne dañu ko tënk ci plan Sénégal émergent waaye nag Sénégal nee na mi ngi jamono ji mi ngi mi ngi ngi tàmbali di fay ay borom maanaam mi ngi mi ngi désendetté c'est-à-dire tàmbali di fay borom parce que wax nañu ne Sénégal dafa yori boro boro boro bor euh, ba tubaarkàlla waaye. moom tàmbali dem fay borom ba pare dem lebaat. waaw Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo nee na nag loolu noonu. mi ngi lay tontu yow yow yow Yacine li nga wax noonu Abdoulaye Daouda Diallo tontu na la nee na amul benn réew ci euh, ci àdduna bi buy financé ay ay projet am ak i programme am à 100 pour cent ci li mu yor foofu mu dem lebi ji donc loolu euh, xëy na dafa xaaroon <laughs> question boobu moo taxit tontu na la mi ngi noonu. kon daal war nañu mën a gis suñu bopp ñun ñëpp ci budget yi nga xam ne à travers ministère yi nga xam ne euh, voté nañu ko ci assemblée nationale ngir ñu mën a doxal alors ñu ñëw ci lii quotidien yéen a kaay xëtam bu njëkk. dafa mel ni DER nag ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi gis liggéey mu am solo DER parce que nag bëri bëri na fi coow ñoom sax ci seen biir ñiy critiquer DER waaye waa ji euh, waaw moom tàmbali na gis ay résultats te ñi ko félicité bokk na ci FMI di sàkku DER mi sax ñu lawal ko euh, ci Afrique gi yëpp muy euh, financement yu muy def délégation général entrepreneuriat rapide surtout ci jigéen ñi ak ndaw yi mu mel ni kon. Euh, duwaa jii moom xam naa ni liggéeyam tàmbali naa feeñ euh, ci réew meek euh, biti réew retour du poste de premier ministre lii quotidien waxaat na ci le hors sujet de Théodore Chérif Montey poste premier ministre également jamono ji laaj bi day ñëwaat rek kenn xamagul ku mu doon ak kan lay <laughs> président rek moom moo xam kan la bëgg a nommer wala moo nekk ci xelam en tout cas moom li mu wax mooy mbir mi sax moom leeragul ci kii mën naa changer à tout moment espérons que nag ni ko xaaj waxee yuuxu dina jëf